أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا باب الحوائج إلى الله مولانا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنال وطري bokki jullit yi ànd ak nun ci daara ji ak fu ngeen mën nekk ci àddina noo ngi yëkkati kaddu di ànd ak yéen di sant buur yàlla di ñaan sunu boroom tabaraka wa taala mu dolle julli ala qiblati l arwaxi di maulana muhammadin alayhi salatu wasalaam ak waa këram ak i saxaabaam ak soxnaam ya ak mboole njabootam ga salatu ak salaam boo xam ne danay baawaan ak a xëpp ba àgg ci képp ku teg sa tànk ba sax day ku tegul sa tànk ala siratil mustaqim ndax naka jekk noonu la yàlla tërale addinam faw mu am ñu jub faw mu am ñu dëng ñi jub jubuñu parce que danoo baax war a jub jub déedéet ñi dëng it dënguñu parce que danoo bëgg a dëng rek dëng ba boo seetloo laaya ji ñu daanele woon keroog ci suratul takwir sunu borom bi muy wax wa ma tashaauna illa an yasha allahu rabbul alamin wax jooju dafa tënk addina ak alaxira tënk programme nit démb ak tey waroon tax xelam dal ci lépp mu bàyyi yàlla mag mu bàyyi buur yàlla ak boppam ndax xam nga ki la wax ni la wa ma tashaa'una mbir munu leen a soob ba tax mu sotti maanaam ajuwul ci seen coobare yéen nit ak jinne ci menn mbir pour que mbir ma mën a antu wala mbir ma mën a sotti illa an yasha allah ndera mbir moomu ngeen bëgg seen coobare dem ca ak seen moyen dem ca seen lépp dem ca ba ngeen yaakaar ne loolu war naa tax mu sotti loolu du ko sottal illa an yasha allah lu dul ni dafa aju ci coobare yàlla lu dul ni moom buur yàlla moo namm loolu sotti su nammul loolu sotti moyen boo ci mënti def xam-xam boo mënti am kattan boo mën a am connaissance boo mënti am taxul loolu antu taxul loolu sotti lu dul ni dafa fekk ni coobare yàlla jiitu na ci ni loolee war naa antu loolee war naa sotti moo tax gis nga ñu xàmmee ñi mel ni ñoom Seydi Malick radiyallahu taala anhu dañ ko daan wax yàlla ah dañ ko daan wax buur yàlla boo demee ci xurufu salat al fatih bi mu liggéey moom Cheikh Alhaji Malick daf ci wax suñu borom ni ko turidu rabbana muridu wa uridu wala yakunu rabbi gayra ma turidu mu ne ko turidu rabbana muridu wa uridu yow buur yàlla yow da ngaa am say nammeel am say dogal am sa coobare di ko defee ni mu la neexee man may man manaal manit damaa am samay bëgg-bëgg man te pourtant wala yakunu du nekk mukk rabbi yow sama borom xayra ma turidu lu dul li li nga bëgg yow nam loolu loolu mooy lii am mais pas man li ma bëgg looloo waral mu dem ba ci yàgg nag moom si moom si daaji malik radiallahu taala anhu daal di jàngale ni qaddir lana rida bima qadayta ya rabbi la ilaha illa anta ok yaakaar naa bayit boobu alhamdul aziz radiallahu taala anhu moo ko wax qaddir lana rida bima qadayta ya rabbi la ilaha illa anta waaw alhamdul aziz moo ko wax radiallahu anhu moo wax mu ni kon nag comme comme ñun du dañu du day du du dafay aju ci suñu coobare ak ci suñu volonté pour menn mbir sotti déedéet da ngay gis ndeysaan ku xëy dem wuti ba ngoon amul mu dikk bëgg koo jiñ dëkk bi dëkk bi neexul wala mu bëgg koo jiñ njiitu dëkk bi président bi liggéeyul nga gis ndeysaan ku xëy dem wuti am daldi ni ah dëkk bi neex na tey de wala mu bëgg koo jiñ ki yàlla dénk dëkk bi daldi ni ah moom de mi ngi liggéey waa seetal ñaar ñi waaw ci biir loolu ana coobare yàlla moom ci biir loolu ana coobare yàlla alors que toute chose émane de sa volonté amul werante yaa ko dul xam li ngay lijjanti muy sotti la koy sottal mënoo ko gis mooma moom sunu boroom loolu moo waral alxaaj abdul aziz ni ko qaddir maa ngi lay ñaan yow bur yàlla nga dogal ci man dogalal ci man ar rida ma nangu ma accepté may gërëm bi ma qadayta ci lépp loo xam ne atte nga ko yow yàlla may ma kattanu mu mën ko nangu rabbi yow borom bi nga xam ne laa ilaha illa ant amul buur bu ñu war a jaamu ci dëgg bu mooy yow loolu li muy signifié moo di ñoom xamoon nañ ni lu ko seen may rëy rëy rëy rëy rëy rëy agguñu ci mukk mën a weñ loxo sunu borom da nga dégg ku wax ni damay poñe yàlla déedéet yàlla kenn mënu ko poñe aywa waxin la rek dafay laaj dégg-dégg xam nga ki nga xam ni dem na ba li neex yàlla neex ko lu neexul yàlla du ko neex kooku lu ko neexati neex na yàlla lu ko neexul neexul yàlla kooku sañ a wax damay poñe yàlla waaye foog nga ne Ahmed Fall bi nga xam te ni biir mi ngi ci li ko neex kooku mën na xëy rek ay wa lekk ba ceeb ba biiram fees rek mu ñu man damay damay poñe yàlla kay woote di wax ay yooyu yooyu caaxaan la moo tax gis nga ma wax la ko wa ma tashaauna illa an yasha allahu rabbul alamin bés bu leeree ci sunu bopp ñu am pasté fu xam ni ndeke liy sotti sottewul lu moy ci coobare yàlla li sottiwul it ñàkk gee sotti ñàkkula sotti lu moy ci coobare yàlla il faut mu leer moo tax cheikh al xalifa radiallahu anhu daf ko daan wax da daan wax mu ni ba muy wax ca tarku tasabbubi min suui ma adabin sabab lu leen te bañ di sukkandikoo yëngu ya waaw ba muy wax ba naan bañ di tuumaal yàlla ak dëkk ya xam nga bari na koo xam ni àggagul ci xàmmee nag parce que bu ñu lay wax coobare yàlla coobare yàlla coobare yàlla est-ce que itam nag dafay tax nga xëy rek toog ni bu yàlla bu ko soobee danaa añ danaa reer même bu ma ko wutiwul wa ma tashaauna illa an yasha allahu rabbul alamin cheikh al xalifa radiallahu anhu daf ko firiwaat ah buñ lay wax naan la mbir mumu yow munoo ko wut ba mu sotti lu dul ni dafa sottee ci coobare yàlla loolu est-ce que dafay tekki ni da ngay toog di xaar coobare yàlla gi dem utal la meew ci boutique bi utal la café ci boutique bi utal la ndox mu tàng ci gaz bi ñëw moom coobare ji indil la kaas boole café geeg meew mi yëngalal la yëkkati kaas bi sexal la loolu ngay xaar soo xaaree noonu nag c'est parce que dégguloo yàlla moo tax cheikh al xalifa radiallahu anhu ni nekk yow daal terku tasabbu bi toog bañ a sabablu kooku min su ima adab dafa bokk ci ñàkk teggin ñàkk xam yàlla pire la te nit dafa war a wuta ànd ak ay teggin ci digganteem ak boroomam moo tax mu ni sabab lu leen te bañ di sukkandikoo yëngu ya sabab lu leen mooy demal wuti rek bañ di sukkandikoo yëngu ya mooy da ngay bañ a sukkandiku ci li ngay yëngatu te sukkandiku ci buur yàlla mi la sant nga yëngatu c'est très important loolu loolu tax wa ma tashaa'una illa an yasha allah rabbul alamin nga benn nit yàlla mos nañ ko ko def ndeysaan ba muy tagg yàlla ci taggam yu rëy buur bu ne mu def ci te- déggal wala yu yàlla bu ne mu def ci ci ci yow tawassul fekk ay noonam ñoo ko jàpp takk ko dugal ko ci biir teen waaw mu xool xool xamul lu muy def mu tàmbalee tagg yonent bi alayhi salatu salaam di julli ci yonent bi alayhi salatu salaam dem ba yàgg waaw tagg wu ne rek waaw mu muytul xalaiqi baada alxaya waaw munshil idami wa muhyi rimam dem ba yàgg mu naan ko nag fa ma shaa kaana wa ma lam yasha kooku fa mumtaniun kayfa shaa ahtakam dem na bay bay wax suñu borom naan ko walaw anna kulla alwara ajmau ala matlabin dunahu mastatam mu ni suñu borom fa ma shaa lu ko soob lépp lu aju ci coobareem lépp lu aju ci bëgg-bëggam moom suñu borom kaana loolu dana nekk waaye wa ma lam yasha lu ko neexut lu ko soobut moom suñu borom kooku lam yakun mënul nekk du mën a nekk moo tax mu daal di ni ko moom sunu borom kayfa shaa ahtakam nu mu ko neexe lay atte jeex na comme nag nu mu ko neexe lay atte keñaan matatu ko ñeete matatu ko yàkkamti matatu ko firfiri fu ne nga daw fa dugg fa matatu ko déedéet matatu ko parce que comme moom buur yàlla moo yore coobare yi te nu mu ko neexe la koy la koy atte kon ah kese mais ala kulli xaal ku ci ne la yàlla dog ci sa wërsëg booba ba mu koy dog ganeegoo sax jamono nga dégg mu naan ko wala wanna kullal wara ajma'u mboole mbindeef yi bu nu daje woon ala matlabin ci benn soxla bu ñuy wut ci yàlla duunahu te soxla boobu coobare sunu borom ji nee na du antu ne la wóor ni mbindeef yépp bu nu daje woon te loolu coobare sunu borom ji nee na du antu yëgal ni mastatam mbir ma du sotti te du mat laa wax sayiduna abdullah ibnu abbas amul benn bés yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam daal di koy woo ba mu ñëwee mu ni ko yaa bunayya inni uallimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tijahak ida saalta fasalillah wa ida staanta fastain billah waalam anna alhummata lam ijtamaat ala an yanfauka bi cheyin lam yanfauka illa bi cheyin qad katabahu llahu lak ru am na sax bu bu beneen bu waxaan ni waalam anna al ummata lam ijtamaat ala an yadurruka bi cheyin lam yadurruka bi cheyin illa an illa bi cheyin qad katabahu llahu lak rufiat al aqlaamu wa jaffat suxuf jeex na sayiduna abdullah ibnu abbas am na bés yonent yàlla muhammad alayhi salatu salaam moom lañ daan woowee xibru hadihi l umma xibru hadihi l umma mooy fóoréew xeet wi moom sayiduna abdullah ibnu abbas daan toog ci biir saxaaba yi nga gis saxaaba yu mag yi di wax naan waay waay moom de yonent bi rek bu jógee bàyyi sayiduna abdullah ibnu abbas ci suñu biir ndeysaan te moom de ndeysaan gone la suñu moroomi doom yi la nga dégg yonent yàlla muhammad di leen wax naan waaw bu dee gone te raw leen nag yaa gis loolu bu dee gone taraw leen nag moom sayiduna abdullah ibnu abbas yonent bi alayhi salaam moo ko ñaanaloon allahumma faqihu fi diin wa allimhu tawil yow buur yàlla na nga ko déggloo diine yow buur yàlla na nga ko xamal xam-xam bi nga xam ni ci la nit di am pour mën a dugg ci waxi yàlla xam lan la yàlla bëgg a wax moo tax wa maa yaalamu taawilahu illa allah wa rasixuuna fi l ilm ba mu ci àggee moom sayiduna abdullah ibnu abbas dana ana minhum man ci rasixuuna fi l ilmi yi laa bokk ñi nga xam ni dañu satax dañu luf ci xam-xam seen tànk dafa dugg ba jeex tàkk ci biir xam-xam sayyiduna abdullah ibn abbas nee na man ci ñooñu laa bokk radiallahu an dafa am benn bés nag yonent yàlla mahamad woolu ko ba mu ñëw daal di ni ko yaa bunay yow sama sa ndoom kaay waay inni man yonente bi uallimuka ma jàngal la ma xamal la kalimatin ay baat moo tax boo déggee olof di wax ku ñeme dañ laa déey pourtant mboole saxaaba yi ña nga fa woon alaaji ana lan moo tax yonente bi taamu ci abdullah ibn abbas yonente bi da nga yaakaar ni bi muy wax ñëpp lay waxal léeg-léeg am na ci yoo xam ne ñenn ñi la koy wax mais du ko wax ñëpp waaw daf ko ni yaa bu ne yow sama ndoom kaay waay inni man uallimuk te boo xoolee bu dee ci wàllu askan abdullah ibnu abbas yonent bi mag la ci moom mais yaa bu ne yi la ko wax ndax mën na ko jur ci bu rafet ndax moom yonent yàlla muhammad ak abbas bi nga xam ni moo jur abdullah ibnu abbas bokk nañu nàmpandoo kon doomi sayiduna abbas doomi yonent bi la doonte abbas boobu mag la ci abdullahi bi jur yonent yàlla muhammad alayhi salatu wassalam amu muhammad la gis nga yëf yi ok mu daal di ni ko yaa bu nay yow sama sa ndoom waa ji inni kay waay man yonent yàlla muhammad wa allimuko ma jàngal la ma xamal la kalimatin ay baat bi ci njëkk mooy ihfadillaha yahfadk bàyyil xel yàlla buur yàlla bàyyi la xel gis nga buur yàlla soo bëggee mu bàyyi la xel da nga koy bàyyi xel mais c'est c'est clair menn mag daf ma ko mos a wax ndeysaan dugg Dakar ma ñëw ziar si ko mag la nit yàlla bu mag la yu toog di waxtaan mu ni ma man nag bala maa génn Dakar dinaa am ay millions yu bare waay ma daal di ni ko waay papa dimbali ma ci loolu man nga xam ne yàgg naa Dakar mun ma am million mu daal di ni ma ah déet man yàlla xam na maay kan di ni ko aha mun ma déet bul sorel sa dégg nag bur yàlla xam na man may kan ma ni ko ay déet mu ni ma wallahu alimum bil muttaqin bur yàlla xam nañu ko ragal te xam na ni man dama ko ragal te moo ni woon wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib moo tax man bala ma fee jóge am ay million bur yàlla xam na may kan bur yàlla ne xam naa ñi ma ragal kon xam na man xam na ni ragal naa ko xam na may kan man kon nag ihfadillaha yahfadka nit da ngay bàyyi xel yàlla pour buur yàlla mën laa bàyyi xel benn nit yàlla daf ko mos def war mbaamam dikk ba ci buntu jàkk ji dégg ñu naan hayya ala salaa ñëw leen ci julli gi hayya ala alfalaax ñëw leen ci mbégte mi mu daal di wàcc mbaam mi yeewu ko yeewu ko daal di dugg ci jàkka ji ndeysaan daal di julli ba noppi génn xool-xool gisul mbaam mi moom boolewu ci waxam daf ko ne buur yàlla yaa ma woo ma wuyu si sa mbaam fu mu ne xam nga ko na dikk du ma ko wëri ihfadillah yahfadk yàlla da nga koy bàyyi xel mu bàyyi la xel da nga koy wattu mu wattu la dañu toog ba yàgg jékki seen mbaam mi di riddi daw ba agsi ci tànkam mu ni ko ah nii rek de ok parce que dafa dëggu ci digganteem ak boromam dafa am sidqu tawajjuhu ila allahi tabaraka wa taala dégg nga ko de mënu la ñàkk yonent yàlla muhammad daal di waxaat sayidna abdullah ibn abbas ni ko ihfadillah tajidhu tijahak bàyyil xel yàlla dana tax lépp loo dëgmal bala nga caa àgg bu dee lu la dana lor la suñu borom dox sa digg ak loolu bu dee njariñ loo war a jot la suñu borom jottali ko teg ko ci sa loxo ihfadillaha tajidhu tijahak mu ni ko gis nga bu ci dara desee lu dul ñaan ba fi nit ñi amuñu man maay muti man man maay razaqu man maay mun'imu maay mugni maay gani maay basitu waay waay laaj ma te ñaan ma wa ida sa'alta fas'alillaha booy ñaan ñaanal yàlla sama benn waay bu xorom moo koy wax bu yaram bi tàngee nag mu ni waaw waaw waaye nag yàlla li mu jox di ko séddaloo yonent yàlla Muhammad la ko jox te yonent yàlla Muhammad ki koy sëkkate Cheikh Tidiane la moo tax man li may wut wutuma ko ci ñii ndax amuñu ko su ma amee lu may wut Cheikh Tidiane laa koy wute ma ni ko ah kon nag alhamdulillahi rabbil alamin a dégg-dégg la rek a dégg-dégg la ku ne da nga koy nangul dégg-déggam dana tax àddina neex waaye ni ma déggee rek a baax ni ma dégg rek a wér dafay tax jamono métti aywa yonent yàlla Muhammad daal di wax ki nga xam ne moo di sayiduna Abdullah ibn Abbas ni ko ihfadillaha tajidhu tijahak wa ida sa'alta fas'alillah wa ida sta'anta fasta'in billah booy wut ndimbal bàyyi fi nit ñi amuñ ko mënuñ ko wut ko ci yàlla mais nag attention loo gis nag ci ëddina sunu borom ci loxo la koy teg wax dafa laaj dégg-dégg de waaw booy wut ndimbal wut ko ci yàlla rek tax nga xëy noonu rek toog ña la war a dimbali nga di leen jaay affaire naa leen non non non li ñu yor yàlla mooy ni ko jox man nangam man nangam boo xeeful di nga dee ak xiif parce que ñàkk xam yàlla weesuwul loolu. benn mag doo ko mos a wax benn waay waa ji ñëw ci jàkka ji naan ko waaw jàkka ji eh bien inna al masajida lillah waaw wa anna al masajida lillah jàkka yi yàlla moo ko moom yéen bu ngeen jugee ah nekk fii nii kii di noddu ngeen kii ah imam déedéet fii ku mu neex jiite fii ku mu neex nodd imam ni ko ah ku mu neex jiite ku mu neex nodd mu ni ko waaw mu ni ko acca micro baa ngi noonu demal jël nodd fekk booba xale yi dem nañ ca garabu niim nga ut seen yar yu baax ñëw téye waa ji jël ci jël micro bi xale yi xàcc mu teg mu ni ko addo jël waa ji nakk-nakal mu ni ko xam nga lu ma bëgg nga xam ko jàkka néegi sunu borom la waaye lépp loo gis ci àddina sunu borom daf ko teg ci ay loxo masuliye boobu responsabilité boobu ñam ko tegoon ci seen loxo su ëllëgee ñoom la koy laaj suuf saa ngi nii mun maa munu ko du sunu borom moo ko moom walillahi miraasi samawati wal ard sunu borom buy wax ci suuf sax daan wa ardullah suufu si yàlla si wala mu ni wa ard yi sama suuf si et pourtant tey boo bëggee kër da ngay dem ci domaine ña nga xamante ni bii ni ñoom ñoo koy jaay nga dem cadastre ña nga xamante ni bii ni mais mais da ngay dem fa nga xam ni ñoom ñoo ñoom lañ ko tekki seen loxo pour nga mën a am pàkk boo dëkkee ay bu bu dee néegu yàlla nga bëgg a dikk wane fa ñàkk teggin au nom de quoi moo tax nag sayyidna abdullah ibn abbas yonent yàlla muhammad ni ko is istaanta fasta'in billah waay waay booy wut ndimbal wut ko ci yàlla wax ji yëpp fi ma jëm rek mooy waalam anna al umma law ijtamaat ala an yanfauuka aw ala an yadurruuka lam yanfauuka aw lam yadurruuka bi cheyin illa qad katabahu llahu lak xamal ni xeet yépp mboole xeetu yonente alayhi salaatu wassalaam bu nu daje woon ñoom ñépp boole seeni xam-xam boole seeni force boole seeni énergie boole seeni pexe uniquement pour jëriñ la yow munuñ laa jëriñ ci mel ni mbir lu dut ni fekk na sunu boroom dogaloon ko atte woon ko ci yow ba noppi c'est la même chose bu nu daje woon ngir bëgg la lor ci mel ni mbir mënuñ ko lu dul ni dafa fekk ni sunu boroom namoon na ko ci yow ba noppi ndax nag foofu nga xam ni nag qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana wa ala allahi falyatawakkal almuminun mu jeex tàkk nag yonent yàlla muhammad tegal ko ci ni ko rufiatil aqlaam bindukaay ba nga xam ni moo doon bind dogal ya daan doon bind li war a xew ci àddina programme bi yëpp na nga xam ni yëkkati nañ ko kenn dootu ko sëppati ci daaj yi c'est fini wa jaffati suhuf kéet yañ doon bindee wow na kenn mënatu koo far c'est terminé lu xew yàlla moo tax wa ma tashaauna illa an yasha allahu rabbul alamin mbokk yi tey nag tabarakallah gannaaw saar woowu ñi ngi jëm ci suratul infitar bismillahi arrahmani arrahim إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم kon nag bokk yi sunu borom tabaraka wa taala nag mi ngi wax ni aywa ida samaa unfatarat lorsque le ciel s'entr'ouvrira wa ida alkawakibu ntatharat lorsque les étoiles se disperseront wa ida albiharu fujirat que les mers déborderont wa ida alquburu bu'thirat que les tombes seront bouleversées alimat nafsun ma qaddamat wa akharat alors toute âme verra ses œuvres anciennes et récentes ya ayuha linsanu ma garraka bi rabbika alkarim qui donc mortel te suborna t'a éloigné t'a éloigné de ton Seigneur généreux. الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Lui qui t'a créé, t'a constitué, t'a donné de si justes proportions et qui t'a façonné selon la forme qu'il a voulu. Kalla bal tukadhibouna biddin. Bien loin d'être reconnaissant, humain, vous recusez le jour du jugement. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Alors, certes que des gardiens veillent sur vous, de nobles scribes, qui notent scrupuleusement vos actions. Inna l'abrara la fi naïm. Les justes en vérité connaîtront le délice suprême. Wa inna al-fujjara la fi jahim. Les impurs seront voués à la fournaise. Yaslawnaha yawm ad-din. Ils en subiront, ils en subiront l'impact au jour du jugement. وما هم عنها بغائبين et ne seront et, et ne, et ne pourront y échapper وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين qui donc te fera connaître ce qu'est le jour du jugement ثم ما أدريك ما يوم الدين en effet qui donc te fera connaître le, ce jour euh, le, ce qu'est le jour du jugement يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Ce jour-là, nulle âme ne pourra rien pour une autre âme. Le pouvoir en ce jour reviendra tout entier à Allah subhanahu wa ta'ala. Bokk yi xam nga ba tey rek ci saar yooyu nga xam ni borom bi tabaraka wa ta'ala ba mu ko wàccee ci yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wassalaam sa première réaction moom le prophète moo di daf ni woon shayya batni huudun wa axawatuha gis nga loolu dafa am lu muy firi et c' est tellement euh, euh, euh, important ku toll ni yonente alayhi salatu wasalaam ni saar yu saar wu mel ni suuratu huud ak bokkam ya ñoo ma bejaawloo ñoo ma ñoo def ci man tiitaange bu tax ma bejaaw ci ku yàlla baal démb baal la tey ne da nga fee melul sax nuñ lay toppee waaw kon xam nga yonent moom boppam taxul muy wax nun ñee tax muy wax kon nag da ngay wax ni bismillahi maa ngi tàmbali ci turu bur yàlla mi ci tur yu kawe yi ak mele yu sell yi arrahmaani bur yàlla mi ci mi fees dell ak yërmande arrahimi bur yàlla mi sax dàkk ci yërmande waay waay da ngay wax ni id bisa nga ci ëllëg boo xam ni ok asamaau asamaan si in fatarat day xotteeku xotteeku inshaqat dana ko waxaat ca suuratul inshiqaaq ba muy wax ida samaau nshaqat wa azinat li rabbiha wa xuqat da ngaa foog ni asamaan daa déglu kenn asamaan dégluwul kenn ki ko bind rek lay déglu nit rek a ñeme déglu keneen ku dul ki ko bind wa azinat li rabbiha asamaan ba su keroog boobu kenn rek lay déglu moo ko jox ordre muy sunu borom tabaraka wa taala parce que baatu azina bu jalgatee li li muy tekki mooy déglu danañ ca ñëw kon da ngay wax ni is waaye waay bise nga ci ëllëg boo xam ni asama asamaan si in fatarat day xotteeku tareb parce que loolu inda xiraabil aalam bu demee ba addina bi màgget nga xamante ni bii ni fi mu nekk ni sunu borom nag war naa dekkal jaamam ñi yii ay signe la ay signal fort la yoo xam ni sunu borom bu nu koy nettali pour wane ni bu nu demee ba àgg ca waxtu wu mu war a yëkkati suuf yii mooy xew tax mu ni is bi sa nga ci ëllëg boo xam ni asamaau asamaan in fatarat day jekki xotteeku xotteeku wa fàttaleel yow yant yàlla muhammad neel gaa ñi bàyyi loo leen xel ni is bisa nga ca ëllëg boo xam ni alkawaakibu bidiw yi nga xamante ni bii ni ñoom ñoo nekk ci asamaan intasa bokkul ak intasha bii firi wesaaro déedéet tasaaqatat yaani intasarat inqaddat bidiw yi dañuy rot mooy intasarat benn bu nekk fa nga nekkoon da ngay wadd daanu ci suuf mooy intasarat bokkul ak intasharat bii firi dispersé aha wa wa fàttaleel yow yoon telle Muhammad is bi si nga ci ëllëg boo xam ni albihaaru géej yi newoon ci addina yi safoon xorom yi weexoon tal yi ñuuloon yi xalloon yi saful woon xorom yi lewetoon yi sëccoon yépp bés a ngi ñëw bopp fu jirat benn bu nekk danañ ko jaxase ak sa morom loolu lay firi géej yëpp la ñuy boole bët ñu ñu ñu ñu ñu bëttaloo waaw xëttaloo mooy fujjirat allahu akbar wa waareel fàttaleel avertiral gaañe yow yontu yàlla muhammad wax leen ni leen is bi nga ci ëllëg boo xam ni albihaaru géej yi amoon yëpp océani yi fujjirat dañ leen di jaxase géej yëpp waaw muxtalata dañuy nekk lu ñu jaxase yu yi safoon xorom ak yi saful woon xorom ak yi sëccoon ak yi neexoon yëpp booloo nekk benn bis boobu nañ ko bàyyi xel te loolu dafa am lu muy firi xam nga ni moos géej yi bu ñu xëttaloowee fu ñu romb mara day taal yi waay waay wa fàttaleel tawaare yow yont yàlla muhammad is bis nga ci ëllëg boo xam ni el qubuuru bammel yi bammel yi les tombes bammel yi boo siraat dañ leen di dañ leen di dañ leen di jeqi lépp lu ca nekkoon génn mooy boo siraat mooy dekkalees leen mooy jeqees leen ñu génn amul benn bammel boo xamante ni bii ni bés boobu da nga rëcc yéppay dekki su boobaa nag su loolu amee sunu borom tabaraka wa taala nee na yontu yàlla muhammad alimat dana xam-xam gu leer gum du laam-laamee nafsun bépp bakkan nafsun bépp doomu aadam maa lépp loo xam ni qaddamat jotoon na ko jiital ci jëf te sunu borom santoon ko ko wa axarat mbaamu yeexe woon ko te fekk sunu borom santoon na ko ko te jotu koo def loolu lay firi pas ses œuvres euh, comme comme on dit tout à l'heure xaw ma nu ñu ko waxee sax déedéet alimat dana xam nafsun bakkan yëpp bépp bakkan dana xam maa la nga xam ni qaddamat jiital na ko jotoon na koo def moo xam muy lu baax moo xam muy leneen dana ko gis wa axarat yaani aw axarat wala mu yéexe ko ba jotu ko def dana ko gis te bu ko gisee lan la koy jural rëccu rëccu ndax da nga dégg muy wax naan waay waay yellante kon sunu borom yóbbu ñu waat ci àddina même bu fekkee benn waxtu la sax ñu jëfal ko fi loo xam ni daañu caame ngërëmam sunu borom nag daal di mel ni doomu aadama daal nit ba mu ko bindee bàyyi koog ah, ah, ah, addina bi bàyyi koog écosystème bi lépp lu mu soxla mu nekk fi amul dara lu muy def lu dul di bàyyi boppam ba seytaane mën ko taqale koog boroomam sunu borom ni ko waa lu la lu jar lii ah lu jar lii ah yaa ayyuhal insaanu e yow mi weddi yàlla doon nga koy firee okay e yow mi weddi yàlla maa garraka ana lan moo la nax ana lan moo la wor bi rabbikal karimi ci nga bañ a topp noonu nga koy firee ci nga bañ a topp sa borom bi nga xam ni waa jile moo la yar moo la yor ba pare sax ci tedd nga te tedd nga am googu rek la mës di jëflante ak yow waa lan moo la wor ana lu fi jar nga ba fi sa borom boobu di toppi leneen allazi sa borom bi nga xam ni xalaqak mais moo la bind keneen bindu la fa sawaak mais moo la yamale say cër ba débordewul keneen defu ko fa addalak moom moo la taaye moom moo la yamale bind la bind bu mucc ayib boo xamante ni bii ni ku la xool ni macha allah nit sunu borom bind bu rafet la ko bind wallahi ba pare rakkabaka mu toggale la moom sunu boroom ca kanam fii ay suuratin ci melo wa nga xamante ni bii ni bu mu ca melo ya maa bopp sha a soob na ko moom buur yàlla xoolal sunu borom mooy xool melo wu ko neex mu melele la noonu te melo wi gën a rafet la melele doomu aadama mais moo ko wax laqad xalaqna al insana fii ahsani taqwim fii ahsani taqwim kon nit melo bi ko yàlla binde da di melo wu rafet suura bu rafet la ko sunu borom binde waa ki la defal loolu jaar ak yow fi mu jaar ak yow yëpp nga ñëw fii ci àddina bàyyiwu la benn yoon waaw kooku ana lan moo la war a mën a wor ana lan moo la war a mën a nax ba tax nga wan ko ginnaaw dem toppi leneen moo tax présence su seytaane ku ko dul bàyyi xel doo dem wax naa leen ko keroog nee naa leen l'homme propose Dieu dispose mais le Satan s'interpose et le problème se pose kon kooku il faut ñu di ko bàyyi xel muy seytaane dafa am c'est une réalité moo ko wax sunu borom di ne ko ah maa ngi ñooma noonu la ko waxee maa ngi ñooma la aqudanna lahum sirataka almustaqim xam naa yoon wi nga ni nañ fa jaar te muy yoon wu baax wa foofu laa naan rëj di leen xaar ku ñëw ma dévier la waa ki la wax lii doo ko teel a moytu doo xam ay pratique am doo xam nan lay jëfee doo xam mais parce que yooyu boo ko xamul moo tax nit yàlla boo demee ci këram lim lay njëkk a jàngal mooy cheytaane su la ko jàngalee jàngal la madaaxilu cheytaan porox ndoll yi cheytaane di jaar nit pour pour pour pour mën ko yàqal su la jàngalee loolu ba noppi nag soog a dugg ak yow ci meloy suñu borom yi su boobaa da ngay dem ba yëg ni ndekete même cheytaane sax ci leeri yàlla lay dundee ah baax na ba ñëw ci suratu yusufa danañ ko leeral incha allahu taala suratu yusuf moom danaa ko jël exclusivement et particulièrement tafsir ko incha allahu taala moom ça n'a rien à voir ak programme tafsir bi parce que aussi dafa nekk saar woo xamante ni bii dafa bëri trop ay amalgame te il va falloir ñu revenir ci yenn yi nga xamante ni bii ni ah mën nañ ko leeral itam rek ñu leeral ko incha allahu taala kon nag da ngay wax ni kalla ëpp naa def mbaaxug yàlla gi bu mu la nax yow doomu aadama deltul gannaaw gaa yi lànk ñoo bañ sunu borom ni bal li fi nekk ñoom de ndeysaan tukadibuuna ña ngay weddi bi yow mi diin ca bés ba nga xam ne lu waay lu waay lu lu waay leble woon sunu borom ne maay fay ma yow mu diin ala ko wax lu waay leble woon man buur yàlla maay fay moom xam nga ma dañ koy dinañ ko jàngee kallaa bal tukadibiina bi dayn comme maliki yow mi dayn am na ñu koy jàngee suñu borom ni kalla ëpp naa def waay waay yow doomu aadama waay waay mbaaxuk yàlla gi tedd nga borom bi bu mu la nax mukk ba tax nag nga bàyyi ko fi dem di toppi leneen ba yàgg sax sunu borom ni bal li fi nekk tukadibuuna yéen a ngay weddi yéen a ngay kàccloo yéen a ngay démentir bi diini ca bés ba nga xam ni sunu borom ne lu waay jëfoon danaa la ko fay lu waay leble woon danaa la ko fay muy ëllëg yowmal qiyaam yéen a ngi koy weddi waaw te bis boobu nag ma tawet di ndax benn buur la am te buur boobu ko janoog moom lu leer ngay wax ah dégguloo fa fa man shaa attaxada ila rabbihi ma inna nu mu ko waxeeti woon sax wa qaala sa yow yow ok yawma yaqumu ruuxu wal malaa'ika saffan laa yatakallamuuna illa man adina lahu rahmaanu te kat wa qaala sawaaba wa qaala sawaaba foofu ku ku fay wax it lu jub ngay wax sunu borom kenn du jël ak moom di wax ne ay naxasa xandan il faut que les choses soient claires mbokk yi am na loolu fi nga koy lijjantee mais doo bàyyi ba janoog yàlla déedéet dégg nga loolu moo tax nag foog ñu bàyyi ci xel suñu borom teg ci nii et man damay fay bor d'accord ñu ne ko ah ñi la lebal bari na mu ni waaw parce que dama am ñoo xam ne dama leen dépêché auprès de vous lépp lu ngeen jëf lu baax comme leneen ñoom dañ koo wattu takk ko ba pare bindu ko su ngeen fàttee ñoom fàttewuñ su ngeen dee dof-dof lu ma génn mbind mi ne leen mi ngi nii ngeen baal ma ah waaw foofu fu waay di mujje mu way moo tax mu ni wa inna alaykum te werante amul ci ni fu ngeen toll fu ngeen nekk mi ngi ànd ak yéen laa ni la xaafidina malaika yoo xamante ni bii ni wooy wattu seeni jëf lañu dañuy wattu seeni jëf ci ñaar benn bu fekkee da ngay topp yàlla ne ci li neex buur yàlla tabaraka wa taala lépp lu jugee ti asamaan di balaa wala muy musiba malaayika yooyee daañu dox sa digg ak loola lahu muaqibatun min bayni yadayhi yaxfadunahu min amrillah la xaafidin gis nga ko de wala bokk wa inna alaykum werante amul ci ni mi ngi ànd ak yéen la xaafidin malaayika yoo xamante ni bi ni way wattu way takk way bàyyi xel seeni jëf lañu lu ngeen jëf ñu bind lu ngeen jëf ñu rëdd di nga ko dégg maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ca qaaf looloo waral sunu borom ni te ñooñu laa ni kiraaman ñu tedd lañu du ñu lijjanti ay détails yi déedéet seen yoon nekkul ci lu dul lañ leen sant kaatibiin te way bind lañu aaw maa la ko wax dañuy bind de ah dañuy bind de dañuy bind de dañuy bind de la ilaha illa allah cey moo tax nit yàlla am na doole waaw nit yàlla yi allahu akbar nañ dem rek mu ni yaalamuuna ñoom malaayika yooyu way xam lañu maa lépp loo xam ni tafaaluuna yéen a ngi koy def xam nga fii moom sunu boroom jëlle leen a boppam mais malaayika yi mu ñu booleel la wax lépp lu ngeen def xam nañ ko waaw qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes ëllëg boo taxawee ci kanamam soo naree weddi rek moo malayka yi su malayka yi waxee coow liy bëgg a bari mu ni ana ban cër moo jëfoon jëf ji cër bi ni ñokket taxaw détaché wu taxaw nee sunu borom ni ko yow laay waxal xam nga lu mu maa la bind maa la moom dama la dénkoon jëmm ji yaa def nangam wala defoo ko cër bi ni ko ankay maa ko def cër bi sunu borom delloo wat ko borom jëmm ji jëmm ji nekk fa naan ko saytaane bi nga doon ku la bàyyi nga may booleeg yàlla mu ni ko mais man ki ma wax loo ku ma wax loo nga wax antaqana allahu alladi antaqa kulla shay moo tax gis nga mbokk yi fii mu ne gis nga nañu góorgóorlu rek te te takkuwaat nag te jéem a jaamu yàlla jéem a topp yàlla jéem a bëgg alquran jéem a xam li yàlla wax ci alquran ñu jëfe ci sunu kem kattan gis nga àddina jeex na fi mu ne àddina jeex na dara desetu fi dara desetu fi dara te ku xool ni àddina bi tëddi rek soo amee xel tuuti rek di nga xam ne àddina bi jeex na ku yóbbu góorgóorlu ci sa diggante ak sa borom. kenn du la bëgg ba ànd ak yow ci sa biir bàmmeel du jabar du borom kër du doom du yaay du papa et qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes yow ak sa borom a woon yaak sa borom lay doonaat kon ci diggante bi bàyyi ko fi xel moo tax mag ma daf ma ko daan wax doomaa dina ñaari buntu la bu njëkk bi booy dugg doo indi dara beneen bi sooy génn di dem doo yóbbu dara waa ji de diggante bi yenu fi loo attanul xaju fi di daana ma waxi doom bàmmeel bu bees tàq mbalaan mu bees tàq néew bu bees tàq waa ji foofu boo fa duggee du la fa xure yaa ko fa yaa ko fa yóbbaale waaye fekkoo ko fa waajilee moo tax kon da ngay wax ni yaalamuuna way xam lañu ñoom malaayika yooyu maa lépp loo xam ni tafaaluuna waa ji yéen a ngi koy def mais alaaji boo amee sa kër nga defa sa benn caméra de surveillance caméra de surveillance bi loo def dina ko xamam du ko xam waa mais jeex na malaayika yaa ngi noonu kiraaman kaatibiin yaalamuuna ma tafaaluun soo fa nekkee di nak naka rek suñu borom teg kaset bi te ma wax la ko asamaan si yëpp nag ay caméra de surveillance la mbaa xamoon ngeen loolu jeex na kon asamaan si yëpp ay caméra de surveillance la kon soo xamee soo xamal li lay li nga soo xamal li lay yoon.
da nga bàyyi wallaay ndeysaan moo tax rek ku yebu xam ni gis nga buur yàlla mëne su ko rëcc daa am sago rek te dëneerlu kon nag bokk yi sunu borom nee na eh, wax ji daal ci gàttal li ma ta xam moo di innal abrara werante amul ci ñi nga xam ni woy baax lañu te ku baax mooy kan ki bàyyi xel ni borom ak mu ki ko bind mooy yàlla ki ko yamale ki ko jox cër eh, eh, bind bi mu amee dégg nga toggale ko ci ci ci ca melo wa ko soob di ko jox di ko xañ di ko nattu di ko jàmmal kooku du kenn ku dul buur yàlla nga nangul yàlla ci loolu yow rek a baax looloo waral sunu borom ni innal abrara werante amul ci ni gaayu baax ya la fii naim ña ngi ca àjjana yu neex ya waaye yal nañ ci yàlla boole amiin waaye wa innal fujjaara werante amul ci ni ña nga xamante ni bii ni ah ñoom it ay ay ay ay bandi lañ parce que fujjaar jamu faajir la ah loolu lay firi nag waaw lo- lo- loolu lay firi fujjaar ah, bandi lay firi mooy ñi nga xam ni dañoo lankal yàlla alak mekk ñu ni li leen neex rek ci la ñuy nekk la waajo waxoon buur yàlla maa ngi damay ne ci lu ma neex su ma dee nga def lu la neex ma ne ko waaw dangaa janoogul ak mbugal mi ndax ku tëb dal ci xal des na la beneen tëb doo ci taxaw di moo tax sawara boo gisee boo gisee suñu boobu naan taxaw sumu ëllin naar xulóob waa sawara daa am lu tax allahu akbar wallaay jàllañ ci yàlla musal dañuy xuloo weec weec vingt quatre heures sur vingt quatre amul nelaw yéeme na sunu borom ni yaslaw naa danañu jaaru laa wax ca safara woowu nga xam ni moo di jahim te mu koy tudd man yàlla ca innal wa innal fujjaara la fi jahim danañ ca jaaru haw waaw innal fujjaara werante amul ci ñi nga xamante ni bii ni ay kàccoor lañu dañoo génn ak topp la fi jahim ëllëg yowmal qiyaam seen dëkkuwaay mooy sawara dañ ko weddi woon sunu borom ni dinaa leen ko wan jaar leen ca maada day taali yaslaw naa daañu jaaru ca safaraw jahim yowma diin keroog bés penc yow ma diin keroog bés ba nga xam ni sunu borom lu waay jëfoon dana la ko fay ku ko lebaloon dana la ko fay te ma wax la ko wamaahum déet ñoom nag bi gaa'ibiina ñuy woy faddu mbaa ñuy am fu ñuy jaar ba mën a rëcc anha ci mbugal moomu di mbugalum safara déedéet échappatoire amut foo mën a jaar ba mara day tali yow mi weddi woon yàlla ba doo dugg biir safara jaaru ca amut loolu waral sunu borom ni wa maa hum te déet ñoom bi gaa'ibiina ñuy woy faddu ils seront présents anha walif mbugal moomu nga xam ne moo di mbugalum sawara kenn du leen ko nettali ñoom dañ koy fekkee ñoom wa maa ana mbir mu màgg moom adraka moo la xamal yow yonti yàlla muhammad maa ana lan yow mu diin mooy bis ba nga xam ne mooy bisu fayante ba ndax rëy na arab bu waxee wa maa adraka rek c'est parce que lam lay bëgg a xamal dafa rëy ay xibaaram wa maa ana mbir moom adraka moo la xamal yow yonti yàlla muhammad maa ana lan yow mu diin mooy bis ba nga xam ne mooy bisu fayante ba mooy bis ba nga xam ne mooy ëllëg bis penc bis penc soo ko déggee mooy pencum yàlla ma nga xamante ne bii ni kenn du ko wuute laa wax kenn du ko wuutee summa ma adraka waay waay yontu yàlla muhammad maa ni waay ana lan moo la xamal maa yowmu diin ana lan mooy bis pénc ana lan mooy bisub bor ak fayante ëllëg ca kanam yàlla yontu yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam déglu suñu borom suñu borom ni ko yow ma bis la bopp laa tamliku amul kattan yaani laa yaqdiru nafsun benn bakkan li nafsin di ci beneen bakkan shay'an lenn foofu kenn mën a lu fa kenn lenn ku fa mënal kenn lenn da nga ko ko faa mënal ci ndigalal yàlla ndax man zal ladi yashfau indahu illa bi idnihi kon nag bu fi kenn it nag jël laaya bii rek bëgg cee taxaw nag di ci sonal nit ñi wej wej judul jeex ama tamliku nafsun li nafsin shay'a bëgg a dàq shafaatu déedéet it nag alquran dafa am nees koy déggee moo tax limaamu Shafii wala boog limaamul Ghazali daf ko daan wax alquranu huwa alladi yufassiru alquranu nee na alquran ci jëmmi boppam moom mooy firi alquran kon da ngay wax ni yow ma bis la bopp laa tamliku amul kattan keroog nafsun benn bakkan li nafsin di ñeel beneen bakkan shay an dara looloo waral mu waxoon la ko di ah fa ida jaat saaxa yowma yafiru almaru min axiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa banii lu tax li kulli mriin minhum yowma idin sha'nun yugnii loolu doo nga tax kenn du tal kenn c'est tout ku ne sa bopp ngay tal sa kër di lakk sama kër di lakk nu nu ñuy def léegi nu ne mais nu ñuy def da ngay aw nee wuti ndox ma aw nee wuti ndox et puis c'est tout noonu rek la mel su boobaa xam nga luy xew ñu ni déedéet ñu ni déedéet borom bi xamuñ ko mu ni wal amru yow ma idin lillah wal amru lu fa di ndigal keroog noonu nga koy firee yow ma idin bésub keroog laa ni lillahi ci buur yàlla lay bawoo lu fa waay def yàllaa la ko defloo lu fa waay mën yàllaa la ko mën loo firee ko noona Xaj Malik Diop yàlla nañ ko yàlla fayal mag ñu déggoon yàlla déggoon alquran mbokk yi kon tabarakallah ñu yemande noonu rek ñaan buur yàlla mu may ñu ñu dajawaat insha allahu dem ci mu taffifin nag moom bari na lool ay ay euh, ay thème yu ci nekk vraiment yu ñu yi ci suñu borom relaté et c'est tellement important ak fi jamono toll ak ñi nga xamante ni bii ni ñoom ñoo nekk ci marché yi di jaay tey nattal nit ñi di peser waaw léeg-léeg ya cay xew suñu borom nee na leen xam naa ko de faites attention de danañ ci ñëw insha allahu taala su ko defee kon allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliqa walxaatimi lima sabaqa nasir alxaqi bilxaqi walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alcazimi salatan tunaasibu qadrahu wa miqdaarahu alcazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin